ci ana mhm. Adama Ndiaye ma ñëw voilà Adama Ndiaye dof sa tonnerre anamu ba tey te ñoom ñaar Abakara li ñuy way yow lañ ko tuddee dama bëgg a wàcc fii teral ma barke Rasulullah ana Adama Ndiaye dof sa tonnerre alo alo

gara gara ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ci wasaare lamb ñu ngi leen di nuyu di leen nuyoo fii ci sa Iba Mar Diop ci journée yi nga xam ne Petit Production moom moo ko organisé. tey yemboog 6 mars 2022 ndeysaan mu ne ki féete à droite mooy kan. Bébé de Gaulle. Bébé de Gaulle. Bébé moo féete à droite. Boucher 2 moom moo lu weex li. Bébé de Gaulle ak Boucher 2 ñu ngi noonu jàppante ci digg géew bi. Boucher 2 am ñaari loxoom ci ngemb. mel ni ku koy waaj a bal waaye bu ñu xoolee bu baax ki nga xam ne ni moom mooy Bébé Dégol benn loxo la jàpp ci ngemb ndengeñ ko génne waat na ko mu ngay dóor benn loxo lay jàpp si ngemb génn beneen loxo ba ndengeñ di dóor ñu ngi noonu seen jàppante baa ngay bëgg a yàgg Bébé Dégol ak bu numéro 2 Bébé ak bu numéro 2 ñoo nekk noonu attention Bébé Dégaule moom mu ngay liggéey mu ngay liggéey ca suuf mu ngay liggéey ca suuf Bébé Dégaule ak Boucher numéro 2 ñoo ngi noonu mu ngay door Bébé Dégaule lay door noonu Bébé Degor a ngi dóor waaye Boucher numéro 2 moom mu ngi cherché ngemb mu ngi cherché ngemb Bébé Degor ak Boucher numéro 2 waaw arbitre àtte na leen lu xew mi wala kan moo dem ardo Boucher numéro 2 dafa dem ardo il paraît non dañoo mi-temps ma mu ngi noonu arbitre sifflé waat na seen diggante Boucher 2 ak euh, Boucher numéro 2 numéro 2 attention Bébé Dégol la ngay dóor song na Boucher numéro 2 ak Bébé léegi nag metti woon na metti woon na sànq ba Boucher numéro 2 génn géew bi da am lu muy réclamer waaye arbitre da ko ñëwal nga bëre daf ne woon adversaire am dafa jàpp ci létt yi xaw ma rass yi looloo tax mënul woon bëre mu réclamer waaye arbitre daf ko ne nga bëre Bébé a ngi noonu moom moom la ñu xaw a jàkkaar lool Boucher numéro 2 moom moo ngeen moo ngeen lu weex ñu mu ngay jéem mboot mu ngay jéem a mboot lan lay def nii. def nii mu ngi koy imposé mboot bi waaye gis nañ mu xaw ko réussir tuuti parce que adversaire am dafa trébuché wala perte équilibre def debout mu ngi koy tantewaat mu ngi koy tantewaat mu ngi koy tantewaat lii mooy dama lay mboot par force. bii mooy dama lay mboot par force mu lay neex mu lay naqare dama lay mboot <laughs> waaye làmba lay neex mu lay naqari dama lay mboot mais Boucher numéro 2 nag bëri li muy réclamé de mu ngay tàllalaat loxo lan lay wax arbitre nee na ko bëreel arbitre nee ko bëreel arbitre nee na ko bëreel Boucher numéro 2 ak Bébé Dégol Bébé Dégol à gauche Boucher numéro 2 à droite door na léegi Boucher attention jàppante waat na ñoom ñaar Boucher numéro 2 ak Bébé Dégaule ba léegi dara amagul Modou Anta Modou Anta maa ngi lay ziyaare Boucher numéro 2 ak Bébé Dégaule ñu ngi noonu waaw yàgg na kay suñu léegi nii bëri plus de 3 minutes ba dara amagul deuxième attention lan la Boucher di def bi Dégolle day génn géew bi wala. Hmm. attention lan lay def mu koy tegal 16 wala mu koy mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy lee mooy lan mooy jongle tegal 16 mooy beneen bi lee mooy jongle mu koy jongle waaye dara amul. léegi ñoo nga ca yàgg na Bébé Dégaule ak numéro 2 arbitre sifflé na léegi xaajale ñaari mbëri diggante Siteu euh, safurla diggante Bébé Dégol ak Bousse numéro 2 mu xaajale leen ñoom ñaar wala mu atte leen jox leen avertissement ne leen bëre leen li ngeen def léegi du làmb ba mu ca pare nag dañ defaat nañu defoon rek mais Bousse mii wallaay Bousse jiili rek la dàq xeex jiili buuse mi yow rek la dàq xeex buy dóor day gëmm ndeysaan jàppante waat nañ jàppante waat nañ ñoom ñaar buuse ak bébé dégol buuse ak bébé dégol attention nga koy forcé buuse nga ràcc ba mu yaa

rëbës wala caatu rëbës en tout cas lamb ji yàgg moom neexul dara. lu ne ngay wax lu ne. arbitre lan lay def day sifflé waat départagé leen jox kat avertissement wala lan la bëgg avertissement encore pour Bébé Dégaule pour passivité nee nañ ko bëre woo da ngay bëre rek coow li jeex arbitre sifflé na génn seen diggante diggante Bébé Dégaule ak Boucher numéro 2 turandoom Boucher moo ko andi arbitre sifflé na génn seen diggante Bébé Dégaule lan moo am temps ba jeex na temps ba jeex na dafa mel ni Bousse moo jël victoire ba voilà Bousse gagne par avertissement et c'est terminé. waaw mais Mbodj. lépp jaamu naaj ziar. ci loolu. lépp jaamu kay. naka tey. naka bés bi laaj. bés bi xanaa may ñu rek. parce que waaj nañ ko ak suñu mbokk. waaw di ñaan yàlla doole ñu sutura may ñu ndam li si des yàggul. combat bi dina am xeex. combat bu saa si moom day bu dëggalee boppam combat bi du yàgg. kon baax na bon. yàlla baax na. Paa Sine dama laa mais ci loo ne gaañ. sant maa yow est-ce que du la plaqué gaañ. te ñëw instant yii instant yii damaa yàqandi de. Elton. mu ngi nee toog. mais da nga xaw a lox lu xew. non tey tey dañ maa yeb. dañ maa yeb moo tax waruma tey tey Ousseyn ndam rek moom moo war barki Seydina Mohamed. combat bi de est que dina am xeex. non lamba ji lu mu laaj ak ñu ngi pare neexee. est-ce moom day ñëw téye moom du nangu bëree man xale du ma loolu du ma fa xaar damay ñëw def lu mu mën xooli leneen loolu moo fi nekk. supporter sama supporter yi waaw instant ci porte bi lañ nekk dugguñu quoi mais ñu ngi ñëw. waaw mooy loolu. duñ fekk fekk lamb jeex porte moo ko waxat quoi moo tax. wax. waaw lu ma ko wax mooy maanaam na ñëw yaroo ñu daan ko ci mooy loolu xooli leneen. waaw incha Tidiane Faye. Tidiane Faye ak noonu. mais bëgg naa la. bëgg naa bu yaatoo Dame Ndoye. anam Dame Li. Dame Li mu ngi fële. tey laa ko war a kuus. mu tëddi. waaw li nga wax. maa ngi koy wax si open presse bi. ana kuus bi. kuus bi gisuma la. kuus bi gisuma la. waaw. kuus nga ba noppi. waaw kuus nañ ba noppi ñu ñaan. waaye kuus mi nga ko kuusa anam. ah. waaye kuus mi nga ko. kuus bi mu war a kuusu. cause bi mu ngi fële ci mikaay ba amara combat tey dina am xeex combat bi incha koy am si kàttanu yàlla mënul ñaax mënul ñaax ndax xalaat na ci kàttanu loolu combat askan bi la ko mu ngi noonu troisième combat de soirée micro central bi dégg ngeen ko mu joxe turu ñaari mbër yi nga xam ne ñoo war a jongante troisième combat bi war dox ci diggante Tapha numéro 2 bu Jambar Wrestling Academy ñu gis Papa Sow le leader bu écurie boobu daal di koy indi mu war a jàkkaarloo ak ki nga xam ne mooy yoole yoole ñaari mbër yaa ngoog yoole yoole à gauche takkoo yu bari tafa leer à droite mu ngi noonu troisième combat de la soirée journée petit production ci diggante Siteu bu Ngor ak Thiatou Rebeuss Eh, fii ñuy waxe ak sax caatu rëbës moom mooy bàkk noonu ànd ak waa rëbës yëpp ñu gis ki jiit troupe bi nekk euh, double moteur le lieutenant de l'écurie rëbës voilà voilà arbitre baa ngi wax ak ñoom sifflé na génn seen diggante yoole yoole lal na benn sengoor dafa Leer moo féete à droite Tapha Leer numéro lewto bi xaw na bar Tapha Leer mi dafa mel ni kuy dóor ñëw ndax en général lewto bu baree rek mbër mi day xool ci say déplacement bu ko gaawalee boo yéexee tuuti mu dal sa kaw mais yoole yoole cokkaas waaye demul dafa leer mu nga fa mu nekkoon ba léegi di ko xaar wàcc na wàcc na ci tànkam jiital tànk càmmoñ jël na ko Tapha jël na tànk ba Tapha jël na ko daan na ko Tapha jël na ko daan ko yomb na ba dee Tapha jël na ko daan na ko li Ousin di wax bien fait xam nga vite fait bien Vite bien fait. loolu mooy vite fait bien fait dafa cokkaas mu jël tànk ba ndànk. oh dafa leer. sëñ Fallou naa. loole sant bu wér. waaw mais naaj may naa ko lool yal na ma yàlla may ndam si kawam de bar sëñ Fallou mën naa ñooy nekk sama ginnaaw gaañ kay xool gaay bul dallu nan de yëpp a génn tey. jëlal. tey da ngaa woote ak bakkan dañuy bul dallu international bi oh oh VIP ndeysaan xol seex la kaay dafa laa mer parce que da nga def open press ma ne jotuma la te woowuloo sama téléphone moo yàqu jour ma Sénégal di suba de Sadio Mané ba sama téléphone yàqu aw ma ba nii nii nii. ba nii nii nii may wax nii nii na yàlla Sadio Mané laa doon supporté ba nii nii nii. nee na andi kuus te la la a kuus. waaw baax na si kàddu yàlla déggoo ma ne bu dawul dee. maa ngi liggéey. billaay bu dawul dee. yàlla nañu yàlla dolli waaw. yii bëri na de. bëggee. mais yii bëri na de. waa gëstu naa si. doo ma ci amal benn moo tax. waaye la ko dal. mais foo toll fi mu toll nii. waa tawfeex rek. Hmm. Eh, bal ma waxoon tey waa mais tawfeex. lu ko ray. xam rek. moo loolu ko waa yaa ma gën a xam. lan ngay wax sa waay. waa jaam daal rek. yee jaam daal. dégg nga nga ne. xale bu ndaw la Ousseyn. bilaay. ay eh, naka ngeen ko andee. waa dara ante boo ko xoolee xam ne entraîné na te xale la. entraîné na bu mu war a entraîné. di ko ñaanal yàlla rek yàlla may ko ndam yàlla rek a ca des arbitre sifflé na quatrième combat de la soirée wala cinquième combat de la soirée baa ngoog ginnaaw bi quatrième bi amul dafa mel ni forfait la ñu ngi ci cinquième combat de la soirée Belende ne ngeen moo ngeen bul xonq li voilà mu ngi noonu Blindé Junior moo ngem boo ngem lu xonk li Babsi VIP moo lu weex li moo koy jéem a noonu Blindé ak Babsi VIP Blindé Junior Blindé Junior a ngay dóor Blindé ngay dóor kenn du Siteu bu Ngor ay bi combat Ngor caatu rëbës ñaari xale yëpp a mobilisé Blindé moo ñu woon ginnaaw ngeen boo ngeen lu xonk lii Babs VIP mu ngi noonu lan la Blindé di def mu ngi ko nengeñ waaw Blindé ak VIP ñoo nekk noonu Blindé Babs VIP Blindé Babsi VIP Blindé nga koy jéem a kal Babsi reculé na deux pas yu defaruwaat dóor benn ci ci weti boobu mu bàyyi fa mu jàpp mais loxo baa nga ca ginnaaw mu ngi koy jéem a mbot attention da nga jébbalu Blindé Blindé action day ñor xom dañ koy togg ba mu ñor lamb doo lambatu dangay ngay làmb ba daj. waaye boo lambatoo rek dangay ngay daj nga te dajagoo. station Blindé ngay gën sori. Babsi VIP fi la di yegg mu ngay bëgg a sori. bu dee mbërantaan la bu amee li mu bëgg. say mbokk danañ la lëng yóbbu. bu dee mbërëntaan la amee li ma bëgg say mbokk danañ la ngemb yóbbu wala danañ la lëng <laughs> ci làmb xoolal da koy mboot da koy mboot ay waay di da mooy boot ne ko kaay mboot ma di mooy boot ne ko kaay mboot Blindé ak Babs VIP Blindé VIP Blindé ak Babs VIP ñoo nekk noonu VIP Blindé mbokk yi moo ngem moo ngemul xonk li Babs VIP moo ngem moo ngemul bees yi Babs VIP door na léegi Blindé Babs VIP xale yi seen combat bi metti na Belende nee na keroog signature ba dañoo jël téléphone am te Babs VIP la ko jiiñ nee na ma dina ko génnee waaye est-ce que VIP dina génne téléphone bi. Siteu bu tuus na lu neex.

ne Babs VIP beneen ne Babs VIP mbot Babs VIP boy Belende Babsi VIP abit ba Belende Babsi VIP door na ko jël Belende Babsi VIP jàppante nañu Babsi VIP Blindé ngay dóor Blindé ngay dóor mais eh, mi saay saay la de wala boog Blindé fàq na ko da koo bëgg a xar Babsi VIP da koo bëgg a xar waaye est-ce que Blindé dina nangu loolu mu ngi koy tëgg mbot.

maa ngay seen Tidiane Faye eh Belende Bass VIP jël na ko Babs VIP jël na Belende Belende mbot ko ñu ànd rëpp sakki sikiwaat na tànk ba lu mu cay def Belel leen na na coppe tànk ba da koy tegal sees wala boo xulee ba tànk ba nga ci am nga problème oh Belel ne Belel ne Babs VIP fanu la yegg sori na Babs VIP fanu la yegg sori na Babs VIP Belel ne Babs VIP fanu la fa la Belel ne yegg sori na Babs VIP Belel Papsi VIP bi ren de Papsi VIP bi ren de Papsi looy wax

fii bay fii ba fii ba. yow doole yàlla xam na ne bu dee amateur lam nga. xam nga lu luwaa santaane xam nga ko wala xamoo ko xamoo ko luwaa luwaa ah kon copé nga yow copé nga lo copé am ko. xaw ma nga xaw ma nga. yow copé nga dóor ba bu ñuy éliminé du dañ koy taf. Eumeu Sène moo gënoon metti le Eumeu Sène gi dañ koy taf moo gënoon metti bi tafuñ ko jëniñ ci foroote jëniñ ci mant laa tong jëniñ ci bad kii euh, presque maanaam sax ko presque taamul sax jëniñ ko ci xoolal bu ma fenee yàlla na bu ma àgg presque taamul sax ko ci taamul sax defuñ ko ci bu war na yàlla jëniñ ko ci jëniñ ci foroote jëniñ ci mant laa tong ah lan nga bëgg. Alboury waaw. ci làmb laa ci làmb laa nekk. yaa ngi dégg maa teele maa teele sama bopp ci làmb. kaa mu seytaane soxla mu ma la jam ci sama kanam jam fu mu xewul bu mu fu gont waaw ci sama côté dégg nga lu ma la wax commune taxuma fee ñëw fii ba fii fii ba fee bi dama koy toppee comprendre dama koy topp mu fay ma wala ma dab ko rek. dinaa leen wooyee ñaañ. waaw. mbër combat bi gaaw na de. waaw combat bi boobu dama ko doole. dama billaay wallaay Papa Sow tamit ko moom laa soxla. di sant bu baax baax waa billaay wallaay di sant bu baax baax waa Diourbel. ku ni Sita Sita sama mag maa ko sant bu di ko gërëm. du seen saal confiance du seen Papa Sow Papa Sow dama tey dama andi bàyyi lépp andi ma ak sama coach Lato bilaay walaay bi ma génnee tey parcelle ñëpp ñoo génn moo tax combat nii rek la mën na demee barki yàlla instant bi daal maa ngi sàkku waa Diourbel nag loxo ñu jàppale bu baax a baax a baax ndax tey kaar dafa manqué gars yi ñëwuñu bilaay loolu métti na ma trop maa ngi sant gars yi yëpp yëpp yëpp yëpp di sant yi di sant ci mel ni Nene ak Dieng ñoom añ yeeg yëpp ñoo toog seen xaalis bi laa kontaan naa trop trop si ñoom ki kontaan bu baax baax a baax di woo kontaan sama nijaay moo faa jàpp na si combat bu baax ñaani egsi na di sant sama doomu ndey Aliou bu dégg bëccëg bi laa walaay dama jàppale si combat bi di sant Moussa di sant ñëpp daal bi laa walaay di wax nag Papa Cissé la pare maa ngi si kawam Papa Cissé pare maa ngi si waa ji dafa daw waaye noonu naa ko maa xamul du ma morom mais dafa métti mais dañuy doole sant yàlla amaana li dafa gën quoi dañuy doole sant yàlla bu baax. bilaahi lan moo ne sa kanam. mais nag booy di bëree grand combat ñoo sama morom ma du ma moromu booy yi. loolu la Serigne Touba man booy dama sama morom. ku ko bañ dee. booy dama sama morom. ku ko bañ dee. bilaahi dama sama waxoon naa ko si rajo bi dama sama moromam. bu ñu bëri woon une minute duñ ko waaw yow wër na yàlla. waaw dama liggéey dama liggéey dama jox lii jaawal moom dama lii jaawal ba pare. waaw ay booy lañ dañoo nekk ci làmb. lamb mooy lañ yaakaar kon nañu nañu nañu bëre lii rafetul promoteur jël la fay la xaalis nga toog ba jour bi ñëwaay xaar ñëwoo stade lii dafa ñaaw ci mbër bu ndaw kon kii bu nekkee mbër bu mag lu mu nar a mel gi nga man combat bu ma soxla bu Siteu mi Siteu bu Ngor dañ kaa jox avance booy bi mu delloo ko barki Serigne Saliou Mbacke bu ñëwee xaalisu booy bi nañ ko xaaj ñu jox ko bilaa wala tala loolu sama combat la booy yi nekk fi di bëri wax nañu ñëw bilaa wala lu si kanam rawit bër lii bu ko demoon turam yóbbu ko faas booy yi xamante nañ bu baax xam nañ kuy Siteu bu andi bu baax booy dama dem morom maa ngi leen ñëw eh. waa mais làmb la rek gayen bi laay sama loxo moo am blessure bar sëñ Fallou booy du man ak ñoom gayen barki alxuraan. xeex bi xeex bi métti sa diggante yow ak moom mais saa bu ngeen xeexee saa bu ngeen xeexee day dem ardu dellusiwaat. waaw làmb la rek gayen bar sëñ Fallou xëy na yàlla moo ko bëggee woon noonu dañu sant yàlla ginnaaw yàlla defal nañu victoire. sant yàlla après da ñuy invité ñu waxtaan gayen bar sëñ Fallou. waaw loolu la demee nag gayen Faye. Ousseyn Sika yëngale saat bi. foo ne. bi gars yaa ngi si kanam tuuti ma defaral ko incha allah. ñëw maa gis mu yëngal saat bi gisuma la fenn. non saat bi maa ko njëkk a yëngal gars yaa ngi ne la si kaw. waaw gars yaa ngi noonu. wala yëngal. li nga sol nii lan la. waaw lii nii xam nga yëfu maam la rek dañ ñu koo jox mu war a ñëw làmb rek. maam na mel ni moo nar a dàq ci saat. waaw moo nar a waaw. làmb moom incha mooy loolu. duñ dara. oh incha allah kuus tëdd rek. kuus tëdd doo incha allah dañ koy kuus mu tëdd arbitre bi laaj na Ndongo laaj na Papa Thiam arbitre Ndongo Lo numéro 2 Papa Thiam mooy ndaamali Papa Thiam moo ngem boo ngem wala Ndongo Lo numéro 2 Papa Thiam jàppante nañu Ndongo Lo numéro 2 Papa Thiam Ndongo Lo door na Papa Thiam dafa bëgg a jàpp Papa Thiam dafa bëgg a na léegi Ndongo Lo nga door rokkal suuf Ndongo Lo Papa Thiam Papa a def nii. Ndongo Lo nga suuf Ndongo Lo Papa Thiam Ndongo fàq na ko Papa faq na ko léegi Papa Thiam

Ndongo Lo door léegi Ndongo Lo eh Papa Thiam bii Papa Thiam lu muy def nii Ndongo Lo xaar ko bañ Ndongo Lo Papa Thiam. Ndongo Lo bëggoon ko fàq léegi Papa Thiam bañ Papa Thiam Ndongo Lo.

Ndongo Lo daan na Papa Thiam waaw waaw Papa

kii nu mu laaj ñu def. yal na ko yàlla may ndam. si. non boobu tegalu même millimètre mënu teg sax mënu maa tegalu mètre. ko doon xeex bi waaye woon. parce moom bëriwul ñëw loon pour daan ma mais dañuy sant yàlla bu baax a baax que moom man daf ma bëggoon a juumloo si ay erreur te man daa am lu nekk sama ginnaaw yaakaar ma xam nga lamb daf maa yaakaar man damaa bokk ci lamb Ousseyn barke Serigne Saliou Mbacke damaa bokk si lamb kon du ma ñëw di sorko sorko sama combat moom parewul pour bëre damay ñëw bu teewee boppam man ma forcer ko pour daan ko. ma dem ba si biir xam ni kii daf maa bëgg a kon damay sant yàlla rek delluwaat samay entraînement boo ñu ñuy contacter di wax ay combat. sa ak ñan. yàgg jolof. loolu ñu bëre sa morom. affaire damay santaat yàlla rek xam nga. ma gën sa. dërëm caatu jolof rax mbay xada. kii du dërëm daa delloo avance bi. kañ la ko delloo naa Mouhamed. kañ la ko delloo kii Fallou moo tëgg lamb ñu mu delloo ko tapel la. dañ ngay ñëw plateau rek ndaanaan réparé ma wooyee ma ñëw 4 combats 3 victoires ñu bëre mën nañu am ay ndaandaangoo lañ. dinaa la woo. du rëyal dara. baa ngi noonu di dem ci diggi géew wi xoolal ma Ziga ma Ziga ngi noonu xoolal ma Ziga waaw waaw moo nga butéel ya ma Ziga ngi noonu di daw di dem moo Tidiane Faye Ziga Ziga eh, ay noonu butéel ba mu yor Music a ngi noonu am na lu ñu koy jox jox nañ ko benn fas gaa yi noonu di wër gaa jël ma Tidiane Faye Tidiane Faye noonu da doon jàpp waaw Tidiane Faye da doon jàpp Tidiane Faye noonu ci digg géew bi eh, xool na lu koy sotti Tidiane Faye un am na benn xàcc buñ andil un Giga a ngi daw jëlal ba un Giga am na lu ñu koy sotti un Giga ngay cëppi cëppi am na lu ñu koy jox xoolal ma xoolal ma Tidiane Faye noonu. Tidiane Faye noonu Tidiane Faye noonu jonkon am na benn béjjën bu mu seex moo ngi koy nga xamante ni nii mooy 1 Giga. nee na gars yi jóg leen nee na gars

xajal fii daa Ziga simeeku na Faye xoolal la Ziga wàcc ñaari bët oomam da koy fàq wala lu mu ko naan la Ziga Faye seen bërëb a suufante suufe na Tidiane Faye samp na ñaari bët oomam jeex na waa Zika yàqare jàpp na fàq na eh moom ko bëgg a mbot da koy xaar Zika da koy daan jàpp na kàddaa bi waa Zika def na kàddaa bi Euleu Ziga def na quatre appuis def na quatre appuis Euleu Ziga Euleu Ziga def na quatre appuis Euleu Ziga daanu na Euleu Ziga daanu na Tidiane Faye daan na Euleu Ziga Tidiane Faye combat bi met waaw combat bi nii rek la mu doon demee ku ko na bëggoon xeex ak moom waaw parce que dama xam ne waaw xam ne oh, bëggul woon si combat bi dara. moo tax xama ma xam ne jël song la bëgg. moo tax ma du gis benn instant nga doo ko mu kaw nga taxaw di ko xaamutu ka waaw instant boobu noonu dafa kaawoo dëbu dama doon bañ a daw ñëw si kaw mu mbas ma quoi parce que dafa xaw a gaaw te xama ndaanaa la tamit doo rek waaxu ko xama mais lamb yi instant bii nii nouveau professeur moo ñëw parce que xam nañu carrément fuñ jëm. jàmm gën gën a ko boppam. waaw ñëw ñu tëj am ndam Laurent Safi kuñ nangu rek ma bëre ak yow. lan nga ma waxoon lan nga ma waxoon après combat bi. dama koy couche mu tëdd coppite ñoom it dama lay yóbbu. dama lay yóbbu si paa bi si paa bi. waaw mais ci loo ne. fay naa la fay naa la. non da ngaa ñëw nanguwuloo bëre da ngaa ñëw téye sa bopp. waaye bu mu wax loolu gars yi soit tapette la na nanguwoo da ngaa ñëw téye sa bopp. man maa ko ndax bu mu doon gis saako yi. moom la mu doon wax mu doon bëree. soit tapette la sama waay. gars ma gars na wax rek mais bu demee ci biir géew ga dañuy daw. barka alxuraan. léegi foo jëm. nit ñaar lu ñu bëre. gis njaago la ñu bëre gis njaago. ma laajee avance gis. gis njaago bu dee ma ne ko ma ne ko mën ay wallaahi. maanaam kontaan naa. waaw maa ngi leen di gërëm ak gars yi kontaan naa Wassintor à droite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 Bébé Elton ajal sa garde bi Wassintor Bébé Elton ñoo ngay xoolal ci biir bët Wassintor Bébé Elton Bébé Elton Wassintor Wassintor ñaay cokkeer dañuy xeex ba doomu daan du ci am ba doomu daanu du ci am Wassintor Wassintor Bébé Elton ko Bébé Elton daw na jël ku ci nekk am nga loxo ci ngemb Wassintor da ko bëgg a kal na ko Wassintor daan na na ko Wassintor daan na na Bébé ma ngay yéeg fu mu jëm Wassintor fu mu jëm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

ñëw jàpp ci combat bi ñeneen gars yi ñoom abaay man mënu ma fay gars yi waa waa sama booy jóge booy demoon ma fi yaa werante gars yi ñoo sonn man man xale laa damay liggéey ku jàpp ne waa say commune wala day neexal yaay nax sama man góor laa gaynde laa sama yaay day fay luwaas boobu léegi dama cay bëgg a génnee fu muy fayee luwaas utoo kër kon du may caaxaan képp ku jàpp ne waa day caaxaan yaay nax sa bopp nañ ma jox gabar si wala ki ngombu faas ñun nañ ma jox ñooñu waaw nañ ma jox gabar si non soxla ma gabar si ma la ki nga ma faat laa soxla su ma mun su ma bëggoon ñooñu man lu métti laa bëgg su ma bëggul am ñooñu su ma bëggul am ñooñu du ma bëriwaat ñooñu bu ma leen joxal du ma bëri wala ma bàyyi nga daan ma bay yéeg ba loo ko doon. léegi daal leer loo ko doon. waaw bu tey rek nga xam ne lamb ji tey ndam rek moo ñu gis. waaw di nga ñaanal yàlla may ko ndam rek. gis nga ñaan de say booy. naka nga wut dañu gis ne ñaan de say booy naka nga leen waajalee. waaw booy war nañ comme ni ñu a waajee. booy pare nañ ni ñu a pare yëpp. rek moo di des. booy lañ ci amoon yor a booy bëre nañ am ndam. mu dem ñaari booy. ñu leen di ñaanal rek yàlla suturaale ñaar ñu des. comme Fadi sama Fadi lo sant rek waaye da ko doon rek sant rek ma doon wax dem mu ñu ma woo jaay bu dee sax lamb lu ma dima pareegu ma sax la mais lamb xale ay xale nekk boo ñuy bëre expérience ci xale la nekk xel mu dal mooy liggéey tuñu su ñooy def suñu xel day dal mais ñooy sant ñëpp daal fii nga yem wala yaa ngi waaye yeneen jour may teg lu garaaw garaaw ko ba mag ci lamb man may lamb man may événementiel mais du man lépp yàlla suñu borom la parce que yàlla suñu borom mooy ñaanu li ndey bu liggéey doom feeku ñëpp ñooy naan boola maa bëti mu dëggal moom boola maa bëti mu dëggal kuréel bi kan moo ko moom kuréel bi fii kan moo ko moom Ousseyn loolu laa laaj kuréel bi kan moo ko moom damaa ñëw police yi ne kenn ñoo dul dugg may leen noo bàyyi leen ñu dugg lii kiñ ma ji lamb mais sant naa ñëpp gërëm ñëpp waa Petit Production Galzo 94 Babal Sow PDG maa ngi koy sant Massamba Dieng naar ñaar maa ngi sant ñëpp Modou bi sama xarit Ousseyn sant naa la gërëm naa la am na paar boo xam ne defu ko ci làmb ji mënu ma sama xol ma set billahi wallahi mais ñoo far abi baa ngi wax ak ñaari mbéy la Dérange ak Imposé Ngalla Dérange Imposé à gauche Ngalla Dérange à droite arbitre bi sifflé na mbokk yi ñoo ngi ci combat spécial bi Journée Petit Production Ngalla Dérange ak Imposé Imposé tey dina Imposé waaw wala déet ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar wàcc nañu Ngalla déranger ngi dox ci kawam imposé cokaas na léegi Ngalla door Ngalla ak imposé Ngalla jël na tànk ba da koy dëj wala def daan oh jugaat nañu Ngalla déranger ak imposé Ngalla na teere ba sànni sëriñ boobu am na lay Ngalla déranger ak ngaa la déranger imposé xale yaa ngi bëre biit na ko léegi mu bañ ngaa la imposé imposé mu ko bëgg a doole wala mu ko bëgg def imposé ngaa la déranger xale yaa ngay ngaa la déranger ak imposé ngaa la déranger imposé Ngalla dérange imposé Ngalla nga ko bëgg a zongale léegi waaye ak ko léegi da daan mbot ko waaw waaw imposé imposé na Ngalla dérange daan na ko jëli ñu rëy da koo mu mbot ko waaw imposé imposé na Ngalla dérange daan na ko jëli ñu rëy waaw ba lamb gi noonu kaa dem. Ngalla déranger imposé xool ma mbooloo ma mandi imposé sifle na Thiatou Rebeuss Siteu mars il est 20 yaa ngi ci digg géew bi Thiatou Rebeuss a ngi doxee wet andi waat na ci digg géew bi Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor Siteu bu li waatoo bi sori yaa waaye mbokk yi dinañ yàgg yàgg yàgg yàgg di leen laale Siteu bu Ngor Thiatou Rebeus Thiatou Rebeus à gauche Siteu bu abit bàyyi leen dinañu bëree bëree mënut a ñàkk Siteu bu Ngor suul na ay tànkam Thiatou Rebeus da koo bëgg a jàpp da koo bëgg a jàpp Thiatou Rebeus jàpp na ko Siteu bu Ngor Thiatou Rebeus Thiatou Rebeus Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor fàq na ko sañaxal na ko Siteu bu Ngor door na ko Siteu bu Ngor Caatu Rebeuss door na ko Siteu bu Ngor fàq na Caatu Rebeuss xale yaa ngay bëre Caatu Rebeuss bu jàpp ne yaa ko dàq bëre da koy daan da koy daan wala lu mu koy def Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor waa lii lan la waa lii lan la waa lii lan la lii lan la Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor Siteu bu Ngor nu muy def lii Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor ngay bëree ñoom ñaar Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor Caatu ngay dóor Siteu bu Ngor waa eh, eh eh laay waa lii lu mu doon Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor mu jàpp ko Siteu Caatu Rebeuss Siteu Caatu Rebeuss na léegi Siteu door na léegi Siteu caatu rëbës dooraat na Siteu ko waaye waaye lii lan ko doomu daanu caatu rëbës mi caatu rëbës Siteu mu ngox da ko doomu daanu waaw waaw kenn xamul lii lan la làmba ngi noonu làmba ngi noonu caatu rëbës Caatu Rebeuss takkaat na ko Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor fàq na ko da koy daan daan na daanu na fàq na ko mu daanu fàq na ko mu daanu làmba gi noonu làmba gi noonu Baba Siteu Ngor fàq na ko sañ xal na ko Siteu bu Ngor door na ko Siteu bu Ngor Thiatou Rebeuss door na ko Siteu bu Ngor fàq na Thiatou Rebeuss xale yaa ngay bëre Thiatou Rebeuss bu jàpp ne yaa ko dàq bëre da koy daan da koy daan wala lu mu koy def Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor waa lii lan la waa lii lan la waa lii lan la lii lan la Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor Siteu bu Ngor nu muy def lii Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor ñoo ngay bëree ñoom ñaar Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor Caatu Rebeuss dóor Siteu bu Ngor waa eh eh laay waa lii lu mu doon Caatu Rebeuss Siteu bu Ngor mu jàpp ko Siteu Caatu Rebeuss Siteu Caatu Rebeuss Siteu na léegi Siteu door na léegi Siteu caatu rëbës dooraat na Siteu dooraat na door na ko waaye waaye lii lan la baatu ko doomu daanu caatu rëbës mi caatu rëbës Siteu mu ko da ko doomu daanu waaw kenn xamul lii lan la làmba ngi noonu làmba ngi noonu caatu rëbës Siteu mu ko xoolal ma supporter ya caatu rëbës takkaat na ko. Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor Thiatou Rebeuss Siteu bu Ngor fàq na ko da koy daan daan na daanu na fàq na ko mu daanu fàq na ko mu daanu lamba gi noonu lamba gi noonu